Euh, mbokk internet Baol TV asalaamaaleykum pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ma ko tàmm di defee rek noonu laa ko defaatee tey ci euh, li nga xamante ne mooy làmb ji seet si ba tey ndaanaan tamit ci biir ndaanaan yi muy Kogna 2 euh, xale bi nga xamante ne wax dëgg yàlla bokk na ci espoir yi nekk fi nga xamante ne mooy écurie Dakar ba ñëw fekk ko fii Gueule Tapée point Sam mais balaa ma koy jox muy nuyoo àdduna damay ñaanal ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ñi dëddu yàlla xare leen ci aljana firdawsi képp ku nekk ci jafe-jafe yàlla na la ci yàlla génne ci bàcc yonent bi tabaski bi ñu tabaski ko ci jàmm ak salaam ñu tal ko fekkee ko ku ci nekk nag def la nga man boo tëddee da ngay nelaw benn fan kese la loolu laa leen ñaan sama mbokk jigéen ñi na amul solo benn fan kese la jarut yenn yi koña maa ngi lay nuyu di la ziar di jaajëfal Thiam sama caméraman bu ñaawul bi Thiam Demba ci jaam kenn du yow borom Sénégal Buzz maa ngi leen di. onze billah bismillah ina wane yàlla jërëjëf borom Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yoon bi sant ñaari waajur xam ñooy nuyu képp ku ñu seetaan ah di nuyu waa Bawol gi ñu jóge waa Touba Toul xam nga Newraan Kër Laman Kër Caaf xam nga Ngaan Ngaan si Njaan Njon Seeseen Sambaay gi ñu juddoo xam nga di nuyu waa Xurwa xam waa Ngas waa Daara Fay ñëpp ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu Colobane nga xam fi la yeewoo di fi tàkk ngeem di nuyu ñëpp di bëggee Baye li sama doom day ji ma fi tey di nuyu borom place bi Lamine fay maa ngi koy bëgg bu baax sama di nuyu Abdou Baye Zal Gala Sène Gala Séré Oulay Assane maa leen di bëggee ñoom ñëpp di bëggee ñoom Cheikh Ngom Pape Faye ñoom ñëpp ak Birama ak Tonnerre de sama mag Thiawé Sarr Mor Kanka ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen ziar. Hmm. émission Peulh Fun la nee naa lépp fi lay xewee koña ginnaaw bi nga santee gërëm nuyu say nit say mbokk ah, tey ah, bëgg nañ xam kan mooy koña waaw koña benn xale la rek xam nga mu ngi juddoo dëkk bu nuy wax Sambaay ko waa yooyu yaroo Newraan dëkk nu yaayam di nuyu sama yaay yi foofu yëpp xam nga waa di koña de benn xale la mu ngi juddoo Sambaay yaroo Newraan ko waa yee boobu mooy Koña 2. Koña 2 séeréer la wala. man bool bool laa bool bool séeréer bool bool laa quoi. dégg nga séeréer. non dégguma séeréer nag. Hmm. Euh, fan nga juddoo. man dégg bu ñuy Sambaay laa juddoo yaroo Nooraan. lan moo hmm. moo la fi indi amaa ko nuyu en passant di nuyu Baye Doudou ñoom ñëpp sama nijaay yooyu mu man Dakar waaw. sa grand bee la dugal ci bëre wala yow la neex nga dugg ci bëri. non bëre moom dama fekk sama grand tonnerre muy bëre xam nga et puis moom ma gën a dugal ci bëre quoi parce que da doon bëre ay mbapat nii ma koy toogal ay cumi ak affaire yooyu noonu dem Yékini Dakar boobu ñoom Yékini ñu ngi fa di leen teel ay yére foofu noonu. foofu laa jaare bu bëre nag. Hmm. nga nekk euh, benn espoir bu ñëpp daanaan nag macha allah ndax olof Ndiaye ne nit ku nekk la muy def bu ko ko xeebal tey nga marqué say empreinte rawatina ñu gën a ci mbappat bi ba ci drapeau chef de l'état moment bi nga demee drapeau chef de l'état naka nga ko doon dundee koñaadu waaw drapeau chef de l'état dem nañ ne ci mbapat yi def saison saison boo xam ne paraka mbapat ci mbapat lañ ko def saison boobu noonu dañ dem drapeau chef de l'état bëre euh, ñuy bëre tournoi après père Amouraas ci la jëloon sama numéro CEDEAO CEDEAO bi leen mi jëkkoon a woo sax bi ma woowee CNG ma dem defan ay 4 jours yooyu noonu di fa fanaan di fa lekk di def lépp foofu noonu ñu yor ma foofu noonu après ci laa fa jógee après bi ma déggee ci lañu woote éliminatoire yi quoi adressé ngoon suñu catégorie 76 kilos yi maanaam ku daan ñëpp yow yaay dem ma daan ñëpp ci laa génn dem drapeau chef de l'État nekk équipe Dakar man ak bébé maa leen nuyu bébé Diène xam nga ñoo ngi koy nuyu xam nga dinañ ñëw ci moom après waaw di ko ñaanal yàlla comme li ko daloon noonu yàlla na ko yàlla. tegil bu baax a baax yàlla na loolu bu mu amati xam nañ lépp ni mu demee mais yàlla baax na mais ak Franc maa ngi koy nuyu bu baax Siaka ak Mbar ñoom laa fa nekkam doon quoi Siaka ak Mbar. moment bi nga fa nekkee naka ma fa nekkee woon na trop nag mais xam nga tey Franc jàppale nañ aussi tamit ndax moom moo jiitu ci affaire yi quoi li naan ku la jëkk ci néeg bi la ne moo leen fi ngay tooge waaw ñëw nañ Franc jàppale ñu bu baax won ñu yoon bi. tey boo ñëwee dañoo ñëw biñ ñëwee Kolda xam nga ñu dalal ñu foofu moom mu ñëw teeta ñu mooy suñu gara woon ñu yoon bi fi ñuy jaar tey buñ buñ jël drapeau bi andi ko Dakar. waaw di ko ci sant bu baax moom itam jàmm na bu baax. mais mu mel ni depuis nga jógee foofu ba tey relation bi da nga koo garder tey jii nii relation yi nga am ak mbëru simple bi ba tey ngeen bokkaat arène bi. du indi benn jafe-jafe ci sa carrière ak mbër yi nga xamante ne ñoom ngay fréquenté mbëru Medina yi ak sa waa écurie tey ñu war a daje ñoom ñëw ñu war a bëre loolu du la indil benn gàllankoor. noo xam nga tey boo xool Medina ak ak ak écurie Dakar xam nga duñu bëre Medina bi écurie Dakar xam nga mënuñu parce que dañu jéggi euh, waxuma wax mbëru Medina wala Grand man man mbëru parcelles yeeg yooyu. yeneen am nga yeneen relation. man benn xaritu mbër laa am benn gaañ muy franc kese. tey bu doon bëreex sa waa bu doon bëreex sama waa écrit sama waa écrit laay dem contact leen jàppale leen tamit sama écrit laa am para xëy na làmb moo ñu boole. Mhm. te puis dama nekk dañ nekk laa mu jàppale ma. Mhm. yaa may dégg mu jàppale parce que ci li ma jàppale man demoon naa bo xam rek xam nga tey boo yàggul ci mbapat te moom moo gën a xam ni muy demee demoon nañ man man demoon naa bo ñun moom parce que su ma daanee Omar Diouane final bi moom da ci joué lu bari parce que di doon woo ay ñu may jàppale. saa euh, boobu noonu man demoon naa ba sama yaram nekkatuma ko waa mu génne ma ci xam nga loolu yombul yëkkati ay. laa jàppoon ci missi. waaw laal nañ ma bu baax laal nañ ma bu baax. boobu da ngaa woon ba pare wala nan la demee woon. non avant xam nga final bi ku ne dangay xam ki nga am. waaw léegi bu ñu nee suba final bi kenn ku ne da ngay xel di woote ni ci sa morom tamit te ñun état bu ñun xam rek xam nga tey ñun comme ñoom ni ñu koy préparé ko préparé ñu ne ñëw rek ne sa mbaax dem. Hmm. Eh, affaire ñu ñu laal ma laal bu moom moo ma ci génne jox yëkkati bagaasam jox ma ko ma utilisé ko waaw jàppale ma bu ma final bu ñu gagné ko. Mm-hmm. Mm. nga ñëw Dakar tamit di ci di yëngal comme ni ko xale di waxee mm. tey jii nii nga am combat mm. match nii la yaakaar naa ñu jox la ci ndam su ma juumul mais jiir la amul parce que temps bi yaag Bulldozer Bulldozer temps bi dafa jeex bi temps bi jeexee ñu jox la victoire nga yëngal foofu. fee ci estade bi Iba Mar woon def fa lu la saf nga ñëw dajeex wës jàmbaar booy xool sax euh, favori à 100 pour cent bu may xool yow lañ ko joxoon joxoon nañ la favori nga ànd ak fougue de jeunesse te combat boobu mën nañ ne sañ-sañ moo tax nga ñàkk ko wala wëz ba ngeen dajee ba ngeen nee daje doole la la ëpp wala naka la demee mais ñu bëri dañoo jàpp ne yow euh, sañ-sañ moo tax nga ñàkk combat boobu. non boobu noonu sañ-sañ ci la bokk ko waa ak fukki du jeunesse comme ni nga ko waxee parce que ñun moom wax dëgg si yàlla waxuma la woo jàmbaar waaye man ma ci laal suuf. moment voilà te wóor jàmbaar maanaam combat bi xam nga combat dañ ko jox ñu bëri nanguñ ko jël xam nga ci la ci lañ ma woo wax ma mën a wóor jàmbaar sama gars yi bari dañu bañoon sax ne ma kooku mu ngi saako bi affaire yi waroo koo jël parce que deux défaites la tegale te yaa ngi ci dynamique victoire waroo koo jël affaire yi man leen amul problème comme demee noonu te di waxante nag Jamaïcain bu pare naa bëri rek quoi te Jamaïcain tamit nag bisam boobu bu yàqoo du baax man demoon naa combat boobu noonu xam boobu noonu ah moo bëri. xanaa moo tax kon bi mu la daanee di la wërloo géew gi boobu nekkoon bi ngay wër géew loolu man mosuma koo gis. non loolu ay mbir la woon rek parce que man ak moom daa am daa am fuñ ci ci ci luñ bokk quoi ci benn côté. daa la daa am lu ngeen bokk ci benn côté. maanaam mooy maara yi di ñaanal waaye xam nga man gis naa mbër ñu daan la ngeen def fair play jàppante kiñ daan ñaanal ki daan wala kii daan ñu ñaanalante daan mais yow dañ laa wërloo ci géew gi man loolu dama ne caam lii ban monde lañ nekk. non loolu ay mbir la woon rek xam nga tey. mais yow après xam nga ne lii dafa garaaw. noo xam naa lu garaaw la lam jooju li laaxasu ne kenn mënu wax lépp <laughs> lu garaaw laa lay wax ni billaay lam jooju li laaxasu moo bari kenn mënu wax lépp mais yàlla baax na tey. mais yi man comprendre ma sax man wës jàmbaar man dem naa ba ci plateau bi di xool nu mu demee parce que damaa gis mu tax suuf man ma tax suuf man xaw ma <laughs> bi laa gis moom boppam ma gis bopp bi tax suuf lii après man def sama lii tax suuf xaw ma sax nu mu demee barke yàlla man dem naa ba sama gaale doora comprendre man daanu naa quoi. mais ci bi. non stade bi gëm mën a daanu naa barke suñu fi wàllu mais nag jooyu ma dara parce que sport la quoi tamit ba mu ñëwee sama gars yi xool am na benn booy boo xam ne ma ñëw tekki sama ngëm ni ci kaw terrasse bi quoi di fut sama ndigg nii xam nga dama gaañu mu yaakaar damay damay damay damay jël quoi ci suuf daw téye sama tànk yi <laughs> xanaa ngaa dox yow man lii dama jaral may xaar yaakaar damay cëppeelu waaye <laughs> dama ne ko ma loolu. <laughs> léegi nag euh, def na la mbër je bu baax dama ci jóg am lu bëree bëri te combat boobu wallaahi suñu defet bi dafa baax ci man defet bi ma ci jógee dama ci jógee am ci loo xam ne nii. yaakaar ma woon sa sama àdduna barke Sëñ Fall. lan nga ci am xaalis wala am kay mënu ma koo toog sax télé sax di ko wax ba njagab Balla Gaye <laughs> kooku yàlla xam na ne li ma li ma li am ci combat bu ma toog sa di ko wax combat am nga nit di nga daanu li na yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. billaay walaay ma defetul alhamdulilah laa dama sant yàlla bu wër parce que defetul ma ci jóge jëlee ci loo xam ne ame ci loo xam ne nii. yaakaar naa jaaree xew voilà dama ci jaaree takk yàlla dimbali ci defet boobu. noonu la demee yàlla dimbali bu baax a baax maa ngi seen yàlla bu baax ci defet boobu. waaw. <laughs> dëgg neexul nañ fi nga jël sa bopp duppee ko Konia 2 Konia nga doon Konia 2 mais lan moo tax nga tuddee sa bopp Konia 2 lan moo la neex ci moom ba nga war koo tuddee sa bopp. non Konia 2 moom wax dëgg si yàlla benn gars moo tudd quoi Tafa Ndiaye parce que dama bëggoon ay ay yére ruus xam nga affaire yooyu waa dama doon dem entraînement su ma demoon man si dama làkk sax man gën naa xees nii. su ma doon dali ruus affaire yooyu noonu wala kii wala ay sor yu ruus affaire yooyu noonu man benn sama ma la moo ma yàq ci song ay mais man sama tàng kenn du ko laal waneeguma loolu nag ñu ci bëri nañ naan kooñaa lay song loolu lay def seen bopp yi moo tax may ñëw di lay def loolu ma ñi may kontaakal ak ñi ma nekkal xam nañu man tàng rek laa doon def comme kooñaa maa ko sa tàng nooju yàlla xam ne sama tàng kenn du ko laal mais ñu may ñu may wootee kooñaa nag tur bi foofu la jaare ba law mais maanaam moom ñoo ngi déggante normal instant bi bi neex la. tur bi neex ma tamit aussi jig ma tamit waaw parce que moo ko tuddee sama bopp ba léegi moom avancement laa ji gis ko waaw changé. Hmm, non ci àddina kooñaa mënul dañ dafa xasee siiw ba pare dara mënu ko dindi. ñu ñëw ci écurie Ndakaaru écurie Ndakaaru ñi fi nekk seen taxawaay ak yéen ban yéeg-yéeg ngeen di am euh, ci biir écurie bi ak euh, Yékini bi nga xamante ne fii la newoon taxawaayam biir écurie Ndakaaru lan nga ñu ci mën Dakar moom wax dëgg si yàlla ay xale ñoo fa ne anti mu ngi fa Sikori mu ngi fa Tonnerre 2 mu ngi fa Sita mu fa Ibou Afia mu ngi fa Boy Jobaas ñoom Teli ñoom Mbaye Cissé maa ngi nuyu perkat yi waaw perkat maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci moom laa war a sax di ko ñaanal jàmm mm. yàlla bàyyi ko suñu kanam ak père Mbaye Cissé Serou Fall dama koy sant bu baax Serou Fall kooku nit ku baax la barke Sëñ Fallu soxlawut sama dërëm damay bëri sax mu ne ma demal barke alxuraan kay ni may saxaay soxlaa gu ma ko heure bii nit ku baax a ngi noonu waaw Écurie Dakar ay xale ñoo fa nekk xale yi gëm seen bopp tamit ñun ay waxu yi ki nii ko fàtte sax ñun suñu bopp bi nii ñun ni mu def ba nekk noonu lañ bëgg a def ñun ba nekk ay champion. maanaam sentiratu leen ko ci biir équipe. non non bi Écurie la ba fa nekkoon léegi dañ ko jëlee foofu. dafa dem yóbbu la fi amoon. non dégg moom li mu fa amoon lépp buub na ko yóbbaale. maanaam yéen ñëw pour ñu ñoo fa ñëw pour defar fa lu bees tax écurie Dakar pour yóbbu ko ci kanam. loolu mm-hmm, loolu lañ bëgg. Mm-hmm. mais dañoo gis ne Colobane ak Fass soriwul mais amoon na temps dañ doon dëkk aada faas est-ce que loolu loolu tamit wax dëgg neex yàlla war na mun a nekk sa diggante ak aada Fass. <laughs> non aada Fass mosuma ko teg ko yaa may dégg. nga moo on de fu la woon. dama ñëw sàmm den seen diggante. waaw mooy dëkk nga Ada Fass ndax wax dëgg neex yàlla. ñoom ñaar ñooy bëre ñëwee samp ndënd mooy daan soxla naa la. Ada Fass mosuma toog ci télé wala kii yow yaa tax ma koy tudd nii sax. mais say fans dañ ko doon laaj xam nga bu baax li ma lay wax. mais ñoom am nañ droit ne combat bi lañ soxla déggoo li ma la de xam nga Ada ma ne ma nu ñu daj ay mbab mbapat yu ñu yooyu noonu xamante nañ bu baax Ada Fass danañ fekkee sama gaale ci tonne tonne boo moon combat dafa ñëw di fa lekk see di fa añ yooyu noonu mais dafa dem ba ci di ñoddi yoo xam ne yooyu doxul yaa may dégg di rom foofu dem màggati di njaab di actionné <laughs> yàlla xam ne ne gi li li béy lekk bay bay mbee mbee xaran ko lekk ne mu ak moom ñu liñ def waaju ko def sax kooku boobu ma sax di wax sax ci moom parce que xamante ne bu baax sax su sama bu day rom sama buntu gale nii yenn saa yi booy seen ko benn tarak damay damay jóg ubbi booy mbéj na ko bul tooñ yaa may dégg buy njaab di rom wocc ko mu njaab njaab njaabam dem yoonam xam nga affaire sekkatoo leen ay nuyoo genre yi. <clears throat> mosuñu sekk nuyoo parce que moom day ñëw yoo xam ne yooyu yooyu yooyu taxawul quoi xam nga man tey man tey Fass mbër bu fi nekk bu ma la rombee may jox ñaari loxo nuyu la yaa may dégg moom day rom di kooku bëgg ma di wax ci moom sax bëgg ma di sori. léegi da ngeen sekk jàmm aat na amul solo. non non da ngeen sekk jàmm da ngeen am jàmm de. ndax lu dul jàmm jàmm ko gën yow ku baax nga moom ku baax la te ay xale ngeen yéen ñaar ñëpp ngeen nekk ay exploit du kon na rafet non lam buñ boole nii bëri de. da ngeen di bëri. waaw ah, buñ lam boole nii man man ah man de déggoo li ma. diggante ko la waan ak Fass. du ma ko laaj. mais lamb kër bu amateur dine bu bëgg suñ ko ma amateur ñuy taxal combat yi parce que ñoom ñooy dagg seen billet combat bu neex buñ ko gisee dañ koy wax yaa may dégg moom bu gañee bëgg a bëre Ada Fass fii la ko yóbbu doo dencal Ada Fass pour taw ma man fii laa yóbbu <laughs> bawol lan nga ko dencal non déggoo li ma ne man Ada Fass bu ñu dajee war a bëre man lu ma am man bawol laa ko yóbbu moom lu ma am xaw ma puut la koy xaw ma jam ñaajo am fu mu dëkk côté yooyu hmm. yeah say jamono ji ñan la ak ñan lañ lay wax wala promoteur dañoo instant sa côté voilà non instant bi samay adversaire instant bi ñu ngi may wax bi Ronaldinho lañ ma leen wax Ronaldinho man bu tëngee <coughs> mais moom tapet la Ronaldinho Ronaldinho barke alxuraanu gari moo tax nga bëgg lu métti yow koo ñaan non daa daa mbër yoo xam ne gi nga gi nga ñun nekk ñu fi di tànn yoon ay Tafa Gueye 2 Ronaldinho war naa ruf sax di wax na ay Tafa Gueye ko mbër moom da nga koy fay ngeen bëre loolu lan la yi nga yi xam lu ñu war a bàyyi. mais Tapha Gueye 2 du adversaire. mais Tapha Gueye 2 man di ko fay pour bëre moom imagine loolu yow nga war a liggéey dimbali say waajur di fay mbër pour bëre ak moom. di ko ñaan fay képp ku bëre ak moom koo fay maa la ko wax fii. ñoom Tapha mbër ak ñoom ñëpp dañ koo fay ñëpp ko fay. loolu mooy lan. ay ñoom Abou Ndiassé ñëpp yàq lamb ji loolu la war a bàyyi comme ça fekk mbër jow ñoo jox ko paa bu doon loolu loolu man man déggoo li ma la de place bi ma nekk rek laa la de daa ma 3 millions laa la da génne teg ci taabal bi pour ay billets Lamine Faye yaa ma dégg place bi ma nekk laa la wax Baye Sall waxi noppi. mais yow kii dafa diis de. dëgg ma ne balaa ngay nii xaaral booy tëj ñoo ñëpp dañu leen tudd mais man lu ma jaaxal mooy Ronaldinho dafa diis. man loolu instant bi loolu laa tiital waxuma ay waxi Tafa Gueye ak ay caam ak ñooñu waxuma leen. Ronaldinho yàlla xam ne man ñooñu man déggoo man sama capacité. rom na ñoom Ronaldinho wallaahi ci man Franc damay contact mooy ay bébé man li ma man ñi ma daan ci tournoi ñooñu mu ñu leen a yëngal yàlla xam na ko duudu xarit daan naa ko yaa may dégg may ga bu ngéeñeen Omar Diouane yaa may dégg kii nu mu tëddi euh, Mamadou Pouy su may su may lim ñu man champion yi ma daan te ñu ma doole fuute barke alxuraan ma leen di waaye di loolu ma di bëraloo ba daw ma jàpp daan leen da leen jàpp ci mystique wala yaa leen dégg ma la de man nee naa man mosuma bëri sama morom man yow xoolal combat yi ma bëri. waaw da ngaa mystique dégg naa da ngaa mystique de. <laughs> da ngaa da ngaa mystique non mystique gu ma sax. man sama yaay moo ma ñaanal sama yaay kese ma dem sama yoon. da ngaa mystique. non non mystique gu ma de. gars yi wax dëgg waxuma ko du sama yoon. dégg waaw ñoom xam nga ñoom ci liñ gis xam nga ñun ay xale la ñun bu ñëwee sax ñun dañ koy yëngal mm-hmm. yaa may dégg xam nga gars yi di nga yenn saa yi nii rek ñu naan boobu galaaj dafa def ni affaire yooyu fekk demul noonu sax. sa digganteeg bébé Diène léegi-léegi say biir wax dégg naa nga ne xam nañ lépp nu mu demee noonu la demee. non bébé nañ ko tuumaal parce que loolu xoolal imagine loolu te nit ba mu neex la nga ne defut dara bàyyi ko ci doomi jàmbur ne ci média bi gars yi bind ko journal yàq dërëm fépp mais loolu war nañu ko xoolaat ko quoi loolu baaxul loolu yàq jeunesse bi parce que tey xale bu ndaw moom mën na ci jóge sax ah bu nekkul nit mën naa am beneen ku am jom dégg nit bu am jom am looy rus am na yoo xam ne bu ñu la ko waxee yow boo paree rek xam nga mooy loolu quoi day metti day metti trop tout suma affaire yi ni muy siiwee nii ko ne naan man ñu bëri ma ah, ma sa waa ji nangam nangam ma ne leen sa waay mu ne ma ma leen nga nit boo xamul ah da ngay tëj sa mu demee yaa may dégg yee noonu la demee mais tey maa ngi daal lii nii yal na ko yal na yóbbu daal yal na yóbbu lépp loo xam ne nii nar na ko dal ci àddina yal na ko lii yóbbu tamit euh, yàlla moo sàkk doomu aadama ak ay jafe-jafe tey euh, maanaam destin nit mënu koo romb xëñ na dafa bokkoon ci li nga xamante ne mooy parcours am mais tamit da koy yokku jom pour beneen yoon loolu bu ko dalaat ndax yow mii nii tey ñaanlu ñaanu moo ko yàlla te mun nga génn fii lu ndaw dal la xam nga nit nit ak jafe-jafe moo ànd waaw doomu aadama ak jafe-jafe ñoo ànd mais daal dama koy ñaanal daal lii yal na yal na yal na yóbbu daal yal na fi yem daal yal na yóbbu lépp loo xam ne lu bon lu nar a ñëw ci moom yal na ko yóbbaale. Hmm. nit ku baax la ko waa ñu dem ci tafaatin Boy Niang combat boobu mu nekk combat su tey àdduna yëpp di ko waxtaanee mu nekk combat boo xam ne combat wu coow la comme li nga wax rek amateurs yi ñooy taxawal làmb euh, Boy Niang Balla Gaye la gars yi doon coow ñii naan Boy ñaa tafaatin mooy combat bi te yàlla def combat boobu taxaw lan nga ñu ci mun a wax ndax nee nañ euh, bu dee rapidité Boy Niang mooy gën a gaaw ci combat bi. mais bu dee xeex tey tafaatin mooy dominé waxu gaay la du samay wax tey yow en tant que mbër boo may analyser le combat Boy ñaar tafaatin lan nga ma ci mën a euh, man bool bool yi laay laay waxaat tafaatin champion la yaa may dégg xëy na jàppale bi gaa yi am amu ko hmm? mais suñ mbokki bool bool yi ah nañ ko jàppale parce que toog naan nit dafa war a daan dafa war a daan dafa war a daan te jàppoo ci tamit toog fi nga toog